asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kooku kan la ki may woo ku la. Taala Saw dëkk fan. dëkk fii Ngeer Malal. Ngeer Malal. waaw. yow da ngaa gis weer wi tey. tey jii ci tey ci alxamis bi di vingt di vingt ci ci ci avril. waaw hmm. waaw wujj leen pare ba génn daal. waaw. may jël sama kër laa taxaw si daal a tox ci activité gis ko. waaw. ci laay wootee nag ci laay wootee gaay yi. naa ñu naan ñëw leen ñëw leen yor waa ngi dégg loolu ngeen gaaw ñëw leen. boo ko ci ko ci gis na ko. wa waa ji des moom war naa leen waxtaan joxañ naa ne waaye ba gis man leen daal ma nga ne ñu man leen man la war a xamal. Eh, Mouhamad. yaakaar naa wéer yaakaar jëru loxo kenn yaakaar naa. ki kenn ki mu tudd. Mafal Mafal. Mafal yow nga tudd Talla. Talla Sow. yow looy liggéey ci looy yëngatu. ouvrier la maçon la. ouvrier maçon